nga xam ni sëriñ bi dañoo jàngal ni saa bu weeru koor teroo na nga wax lii muy ñaari bayit yi ñëw fas yéene wax ya barru yallahuma ya sallim ni abad min Ramadan wakfi ni kulla nakat وسلمن رمضان بالتمام summa تسلمنه ni ya salam ko lol moy ñaari beet yi nga xamni señ mi neena sa bu wéru koor téro sa buñ séenoo rek ban né wéru feñña manam nañ ko wax nañ ko jital si suni sunuy ñaan ginnaw lol itam jàngalaat nañ ni li nga xamanteni sa bo xeyé xëyee ci subak wéru koor nanga ko wax sa bo yewo ba tek say tank ba lu ba japp manam na nga wax بيد ييغا خامتاني موم لا نيي بڬ واخ يا بر يا اللهم رب رمضان ورب كل ما احتفى وما استبان فرمضان زائه حد سرم وبجميع الفوز والخير ألم وأستعيذ بك من أن تغرب الشمس في يومي haza maghriba wala zanbun xatwa xizuniya bihi alaya yowma mawti rabbiya waqbal siyaamiya bi jaahil muxtama wasalliyan alayhi summa sallima loolu mooy béyit yi nga xam ni saa boo xëyee ci weeru koor war nga ko wax li si dolli ko mooy ay bayit yi nga xam ne sëriñ bi bind na ko ni saa bu ñu dogo it ci weeru koor nañu koy wax bayit yi moo nekk ni xamdan liman aanani fasumtu wa saaxali risqan bihi aftartu falaka waxdaka ilahi sumtu summa bi xudratika xataftartu falixfiran jamia ma xadamtu يا غافر الذنب وما أحرت وكلما أسررت أو أعلنت وكلما علمت أو جهلت أنت إلهي لا إله إلا أنت حني عذابك المجلى يوم الحيامة بجاه المصطفى وصل عليه ثم صرفا كون لولو موي bayit yi nga xam ni saa bu ñu dogee mën nañ koo wax jërë ngeen jëf ردي في الأداء البيع والمداد هلا وسهلا وترحبا